Thank you. di leen ñaanal jamm ci diggu saaku ci yeen mën ngeen abonné ci sen chaîne youtube ngir ngeen di mën di déglu mën di sétan lu ñu mën di duggal nga dem sétan ko incha allah. maaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di siyaare waat di leen sen waccu way bu baaxa baaxa baax. te ñu fee seet siwaat Boy Lo bi daa bëren gisuñu ko nag mu wàcc arène bi te ñu fas yéene waxtaan ak moom fekk sa fekk ko ci biir mbooloo mi boo nga xam lan moo tax boobu ba léegi Boy Lo ak mbooloo mi topp ci ginnaawam lan la leen di wax tey ndaanaan ñu ngi lay nuyu waaw on sibila bisimilah ina wani yàlla di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah waaw di nuyu waa Medina ñëpp waaw di nuyu waa Ngunjaan di nuyu képp ku fi teew ñu ngi lay bëgge bu baax a baax waaw di la ziar bu wér wér waaw. acca boyloo dañuy dugg tout droit rek ci laaj yi ah? waaw lan moo waral tekaaral bi boyloo. waaw tekaaral bi de xam naa ñun ñoo si bokk yem quoi ndox tey gi nii maanaam lépp lu ñu am te amuñu komba xam nga amuñu lu ñu bëgg. Mhm. waaw ba tax na instant yii nii wax dëgg fa ñun xaar nañ ba sonn daal mais da ngay mënoo comprendre quoi. Mhm. xam nga xale boo xam ne bu jógee ñëpp jóg mobiliser def lépp xam nga. bëre 4 combats 4 victoires. Mhm. defe naa warul mën a toog du bëre quoi. waaw loolu nag manager bi laa koy déclaré boo yaa ngi nii. Mhm. lu tax vidéo dina si jot incha allah bi damaa sonn booy chaque jour dañ may laaj ndax combat am na. Mhm. waaw Sëru Fall dama lay ñaan ngir yàlla vidéo boo ko seetaanee nga déglu booy liñ lay wax bu baax a baax a baax nga jàppale ma. Mhm. ndax ma dama nekk si yoon quoi te instant toog bërewu ma loolu moom nekku sama arrangement. nan ngay def booy loo doon champion nekk fii nii war a chaque année mu bëre deux combats war trois combats booy yi topp sa ginnaaw nga war di bëre bëre woo ngay gën booy di la laaj lan moo xew nan lan la lay def. waa loolu li may def mooy di di si am kersa rek ndax booy ñu bëri duñu comprendre maanaam affaire bi mu demee. te làmbu lépp ménagère la ménagère bi moom. xam nga moo war a teg affaire bi si yoon quoi. vraiment ndax instant yi man moom chaque jour dama koy woo téléphone di si wax ak moom mu naan ma tey suba tey suba tey suba. waaw dafa jot nag muy loolu ndax booy moom instant yi nii dañoo maar si loolu quoi lamb rek lañ soxla combat. waa sama morom yaa ngi si biir làmb ji. ku Laurent moom moom waxagula dara quoi. non mu ngi wax ak man quoi mais daf may xaarlu ay bés yu mag affaire yooyu loolu lépp. baax na si quoi mais man bu ma soñoon combat taxaw loolu moo a gënal lu nekk quoi. Mhm. ay ñoom Laurent Ndiago yëpp kenn ëpp ma si victoire la maa ko ëppale victoire trois combats la am trois victoire. Mhm. ah man am naa quatre combats quatre victoire. Mhm. waaw Laurent Ndiago ana lu mu lu ma ëppalee xanaa nekk di peut si média loolu rek la ma ëppalee. mais yàlla xam na ko combat man ak moom combat waaw mu bañ ko mu nangu ko maa moom combat ndax ëppale mu ma dara si làmb quoi. mais nag mais nag laaj bi dinaa ko laa sa supporter yi ndax nangu ngeen combat am ak Laurent Ndiago yéen a ko wax de ah? gis ngeen gis ngeen Laurent li mu def pour Siteu gis ngeen Laurent li mu def pour Siteu kii moo gën a garaaw ah mais est-ce que yaa ngi koy sóoraale bu baax waaw ak moo tax nga taamu bëreeg pour sita jàmbaar dama lay wax leen ah. Laurent li muy bëre ak bu Siteu ah. barki alxuraanu karim laa la waatal mm-hmm. bu Siteu bu ma bu ma bu ma ma ko mayoon war ndomb sax mënumaa def trois appuis waxatuma laa ah te moom day bëre moom muy saf muy neex Laurent Ndiago xam na bu baax a baax mm-hmm. fekk naa ko keroog stade xam nga mais man xam naa ne maag moom combat la tey combat suba mm-hmm. donte nag mun na ko bañ lii affaire mais nekkul si affaire raw ma wala leneen da koy bañ si wax rek mais Laurent Ndiago xam ne sama maas la sama lépp la war nañ mën a bëri maak moom te man moom su ma soñoon tamit moom laa soxla tamit. mais est-ce que wax nga ak sa ménagère limal ko ay champion yoo bëgg a bëreel yow itam. waaw man ay champion laa bëgg a bëreel waaw ku dul champion bëgguma bëreeg moom ndax man champion laa lool moo tax. Mhm. barki alxuraanu karim. waaw ku dul champion man bëgguma bëreeg yow mais ku nekk champion man bëgg naa bëre ak yow ci sama génération. noonu la demee. acca mu ngi noonu kon gars yi dañ laa war a jël nga bere ndax ñun topp nañ la fu ne seetaan nañ la fu ne itam mais Boy ak bere yi ak taay bi ba léegi jaaxal na gars yi lan moo waral loolu bere bu nekk ci yow la wala lan la. waa lamb moom dëgg la yi ñu bëri nee nañ doole la mais lamb man dama gëm ne warsëg la quoi. waaw ku sa warsëg nekk si làmb da nga koy jëli. Modou bi muy commencé amul tollul neen yaa ngi dégg instant moom mooy roi man sama gëm foofu laa ko teg quoi. te ma seetlu seetaat xam ne sama warsek mu ngi si waaw bu si ñuy jàppee nag ñi nekk sama ginnaaw ndax ñu ngi siy jàpp ñu gën a yokk man ñii rek laa am awma keneen barki alxuraanu karim billaahi man ñii rek laa am awma keneen waaw di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal rek yàlla fay leen quoi barki Serigne Saliou waaw loolu rek laa am lu may wax ak ñoom barki alxuraan ñu gis boyloo saabu bu ngemboo suñu xel yëpp dem ci Modou Lo melokaan bi ba ci biir bëre bi len rek ngeen wuute yéen ñaar Boylo dafa sob ci biir béré day def ay kale yoo xamante nii man damay dem sax ba damay tiit ndax Boylo mi yaram yi am na ay yàq wala déet quoi lan moo tax Modou Lo dafa doon sa royukaay wala lan la. waaw li nga wax dëgg la yàlla mooy bind nuróole quoi. barke alxuraan Modou man dama ko bëgg ba jeex si moom takk kon xoolal lool bu ñëwee ma xam ne du hasard quoi. Mm-hmm. waaw loolu du suñu suñ côté quoi ndax man moom comme li ñuy wax dama judd si bëre. waaw man bëree rek laa xam xaw ma leneen te mun naa ko am naa fit bi sañ naa koy def barki alxuraanu karim lenn rek laay ñaan sewru mu mu jox ma combat ndax man nekk guma mbër de barki Serigne Saalu nekk guma mbër billaahi nekk guma mbër ndax man li ma war a bëre laa la wax de ak li ma doon bëre bëree guma ko fii nii gars yi gis ko man loolu rek laa yàkkamte te loolu laa bëgg xam nga ñëw bëri affaire yooyu noonu lan nga jàpp ka moo lay def mbër waaw li may jàpp ne moo may def mbër mooy ñu jox ma ponkol ma bëreeg moom mu dóor ma ba may bëgg dee man ma daan ko man loolu rek laa soxla. comme ñu mel ni ñan. waaw à part mi nga lim léegi. waa à part Laurent am na ñeneen ñu fi nekk am na ñeneen ñu fi nekk ay Bo jeex jàmm ak kii Aliou Fat Fat waaw ñoo ñëpp ay combat la. baari bari bari ñoo ñëpp combat la. barki la. ñu ngi lay fay. tur bi naka la. man Alpha la. al alpha alpha alpha ah? waaw gars yi di ko ok Mbacke waaw acca ñu fekk la fii nii ci champion bi ñu bëggoon andi nga andi ñu ay témoin ci moom rek nan la nekke ak yeen ci koñ bi balaa ñoo ñëw ci lam jeeg affaire yooyu lan la nekke ak yeen supporters yi ci biir koñ bi ak nan lay dunde ak yéen quoi waaw avant tout maa ngi ziyaar ñëpp mm-hmm. di bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm yàlla na fi sax te yàgg mm-hmm. waaw Boy Lo moom daanaka moom waaw gis ne lépp ci moom te xaar bi dafa yàgg torop dañoo xaar ba découragé bi passé gis ngeen stade luñ ko def dañ ko diw ba mu fees yëngal foofu noonu après xam ngeen rek mala la suñu waaye amul nu mu fa demee woon mais gars ñoo war a jël avance bi tamit ñu bëre ñun dañoo xaar ba sonn ku jël avance bi dootoo ko dolli mafia bee ngi nii boo yëngi nii pare fépp booy dañuy dox si kaw fiilu lu yi saa ah ragaluñu loolu de kon da essay bes bi rek ngeen di xaar quoi. ñun paré nañu. waaw waaw paré nañu. billahi wallahi mhm. nga dégg mu lim ay champion yu melni ay ñom Boursita ay ñom lora Ndiago. ñooñu dañ leen bàyyiwul xel sa mais xam nga rek amana lu mënul ñak fokk mu am. mais ay papa bari bari ak yoy non nañ jël avance bi. Ah, ñu ñoo lool lepp lamb la billahi wallahi ah bon waaw. Mhm. ndax ba ngeen di andak mom ba legi amago ci quatre combat yi mu am suma juumul ah. amagul na ci combat boo xamante ne nii préparé na ko ngeen jàpp ka ne tey de du ngeen ci gën ngeen dem gën ci. waaw daanaka bii paase bii paase ndax ñun bu ñu gisee waa ji dañoo tiit suñu yaram bi nangul taxaw fii ci di rës rës yi. ah bon. billaay wallaay. ok bii paase ñun dañu yaakaar dañuy ñàkk a sàmmee xoolal après yàlla def. xëccal micro bi waaw. micro bi. waaw. mais kon loolu moo tax ngeen ngeen ci combat boobu moo tax ngeen bëgg a engagé ay ñoom Bour Siteu ay ñoom Laurent. waaw ay Bour Siteu sax dañuy xaar ay Bour Siteu ñun teguñu leen bët ñun ñeneen la ñu tëg bët champion yu mag yi ay Bour Siteu waaye tamit loolu du lambu. Ah. bi laa dañ koy faxas jàll dem xooli leneen. dem xooli ñoom nañu jox si champion yi. champion yi la ñu soxla. Mhm. tamit waaw di ñaanal boru Medina yëpp ndam ay Ibou Afia ay Cheikh Bouya. Mhm. ay Bébé Diène ay Diène Kayre yàlla na waay yàlla na dëpp Zarko ba mu ay coréens. combat la de la no Diène Kaïré day am ndam. ah Zarko waxa ko bàyyi si làmb ji rek. ok waaw mu ngi tallaxu di xëwaa di wax lu ne ndax mais tey la tey. mais tey boo amoon loo yokk mbër. ci wàllu entrenement entraînement ak wàllu conseil daal yoo koy conseil lan nga koy wax. mbër moom ay wàllu bëri moom duma ko si conseil dara lu ma koy conseil mooy na gën a tërëng rek. tërëng moom ndax liggéey moom lu mu la mayul du la ko xañ. waa na gën a liggéey gën a liggéey. ba toll noo xamante ne man la ko gis boo doo ñemee jël avance bi ñun loolu lañ bëgg waaw te kii tamit xam naa ne fu mu jëm ragalu ko deret bi tuur moo gën drapeau bi cuubu ñu ragaluñ fu mu jëm ñu xaar ba mu ngi noonu ndax li war li war ci supporter ci seen champion seen mbër est ce que yéen itam yéen a ngi ci. waa ñun ñu ngi ci kay. ñu ngi ci kawam bu baax te kii mburu bu tàng la. billaay wallaay mburu bu tàng la. moo tax ngeen ñëw ba ci boulangerie bi ngeen toog. waaw gisoo loolu gën a yokk boulangerie bi doole yaa ma gën a xam. <laughs> waaw waa di ñaanal borom boulangerie bi tamit ndam ndax combat bu amee da siy jàpp trop. macha allah dëgg la dëgg la waa yàlla na jëm ci kanam nax. amiin yaa mhm. aca waaw. pël yi moom dama leen laaj. ñu ne ma xoolal mi ñu naan Grand ko Medina ko barki Serigne Saliou Mbacké man aw ma lu may tiit aw ma ragal comme niñ ko waxee rek waaw mburu faf ko firiñ la quoi xam nga man instant yi nii man combat rek moo ma tëree nelaw mais du leneen ndax man combat combat moo ma moo ma gënal loo loo gis si àdduna instant yi nii nii nii loo ajul kase bi itam est non loolu moom waxtaan la ba juboo rek. Ah. xam nga mbër muy mobiliser moom xam nga foog mu am problème mu kase. da gars yi mënuñu chaque jour ñuy jaar sa kaw quoi. Mhm. mun nga leen nangul benn combat ñaar ñett xam nga mais boo demee ba xam sa bopp da ngay taxaw rifaste tamit. xam nga boo koy bëree tamit mu jar ko ndax gars yi dañ ciy sonn. Mhm. jël oto fii jël xam nga affaire yooyu noonu. waaw loolu day xaw a metti quoi. Mhm. waaw may ñaan ñi nekk Medina ñëpp borom doole ñu ñëw jàppale ma. waaw boy bu ndaw bi la quoi lo. comme ni ko Mbacke waxee rek di ñaanal Serigne Ndiaye ndam yo kii bébé Diène Diène Kayre ak Ibou Afia chef bu waaw yal na leen yàlla may ndam bu seddu guy barki alxuraan karim waaw maa leen di ñaanal bu baax a baax waaw di bëggee Alim Boulangerie tamit comme ni mu ko waxee da siy jàpp bu baax a baax a baax yal ko yàlla gën a dooleel yokkal ko lépp incha allah acca noonu la kon lool laa la bëggoon laaj ndax tey Medina dafa ay champion yu war a bëre tey ak dimanche di ñëw ñaanal ndax ñoom seen biir seq ngeen relation boo xamante nii war nga dem jàppale leen seen combat wala yow nga am bés ñu ñëw jàppale la. waa ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp xamante naa ak ñoom bu baax a baax ñoom tamit xam nañ ma bu baax. muy bébé Diène muy Ibou Afia muy Coriace. Mhm. xam nga Diène Kairé daal moom laa dese kii nii mais ñeneen ñi ñëpp xam naa ak ñoom xamante naa ak ñoom. waaw lépp si benn mbuus mi la rek ñu ñoo bokk mbis quoi. Mhm. maa leen di ñaanal bu baax a baax a baax. Mhm. waaw di gën a dooleel ñii quoi di leen ñaanal yal na leen yàlla fay seen xol barki alxuraanu karim billaay ruq bi moo fi génnee jàkkaarloo ak ñoom rek xam damay am kersa sax dani ma amul combat barki Seydina Mohamed non da ngay am combat sax inshallah yàggatul bu baax a baax ndax dama mën a bëre barki alxuraan dama mën a bëre yow xam nga si dara sax waaw topp nga ma grand gis nga lépp barki Serigne Saliou Mbacké dama gëm na mbër muy takk ngem bu ma dàq bëri amul mhm. sama gëm-gëm la quoi mun na am nag mais amul li mbër man si bëri te mënu ma ko mais nag xam nga gars yi nañu siy jàpp bu baax a baax a baax ñu dem bëri ji ndax ñuy topp sama ginnaaw toog di xaar dafa metti quoi man amul benn lamb bu ñu ma tëgal nit ëpp ma fa supporter amul billaay lamb yi ñu ma tëgal yëpp maa fa ëpp supporter wala bu ma jëlal un tamit jël deux noonu rek la demee ah ay tere gaal gi lambu simple yi booyloo def ko bay wala est-ce que itam dalal sa xelu supporters yi ak sa boy yi sax dimanche heure bii nii teg nañu 3 millions tere gaal gi tey nga wàcc ànd ak ñaari booy ñetti booy dem ngem bu bëre bu yàlla defee nga jël ko nga ñëw bëgg ak sa boy yi itam voilà. waaw li nga wax dëgg la loolu moom lu am solo la tamit waaw lépp loo gis dañ koy liggéeyal quoi xam nga liggéey toog xaar affaire yooyu noonu mais loolu nekk lu ma bañ sax mais xama rek foog dañ koy pare bu baax a baax donc def quoi. acca kon dañ lay bàyyi nga sant gaa yi tàggatoo nuyu itam waa waa dëkk ba waa Ngoundiane affaire yooyu. waaw di sant waa ngu Ngoundiane tamit bu baax a baax di leen bëggee bu wér a wér surtout waa diwaanu Baye Fall xam nga ñoom Adama Khady yëpp bëggee naa leen di bëggee gaa yëpp di leen siyaar bu wér a wér di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay di ko santaat bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sant sama mag ngoon yi maa ngi koy bëggee bu baax waaw di bëggee gaa yi nii nag waaw mafia bi. Mafia 37 angle 20 bi ñu ngi koy bëggee di bëggee waa jàppoo yëpp waaw ñu kenn xam nga di leen ziar bu wér a wér a wér di leen ñaanal jàmm ak salaam fi ak taysiir waaw di la bëggee yow tamit bu baax gis naa sa taxawaay waaw mais fexeel na gars yi jox ma combat man instant lu ma am combat moom ma ko gënal parce que Serigne Sall ndax may mobiliser da damay bëre tamit noonu la demee. Hmm. incha allahu rabbi di nga am combat loolu moom bul sax sonto gars yi suñ suñ ko leen waxee rek. daam lu mu bëggoon wax. acca kan la. acca waaw jàmbaar waaw ah, bisimilah fay ay si jàmm de ah naa is kañ waaw tey nag bëgg nag combat billaay wala xaar bu yàgg la billaay ko fekkee mu toog si yàlla dama koy fekk mu toog mhm. ay bari bari yëpp rawuñu billaay wala ay bari bari ay buuside ay lora fa bàyyi bu yàgg mais c'est que xoolal amul jàppale quoi ñu wax gars yi jàppale ko bu baax waa koñ bi ñëpp jàpp si jàppale ko quoi billaay wallaay loolu laa am si lu ma wax quoi. ñun xaaruñu si Bamba Fall de billaay wallaay kooku bu fekkee ma ne xaaruñu ko si ñun xaar nañ ñeneen. Mhm. barki yonent bi. acca rafet na waay. noo tudd. man Aliou laa tudd. Aliou. waaw. waa loo bëgg a wax ci mbër. man. waaw. booy bi dama kaa bëgg. bolo rek lay top han ah? bolo ku ñew mu daan ko ku ñew mu daan ko ah? billahi eh, saay ban ber nga ko bëgga jox ni ñu lora ndiago lay soxla lora ah? waaw año buusita año buusita ñon dal na xolul sa ah bon billahi ok lo tek jël la waaw waaw lo yo la jël ko billahi da koy jël ba ba amon lo koy wax tay lan nga koy wax mbër ñu combat lañ soxla. billaahi. incha allah. nuyu naa ngi maa ngi nuyu wala mafia banlieue treize bi yëpp nag. banlieue treize waaw mafia maa ngi ah. bi ah. waaw ñun nag dañoo yàqamti suñu combat nag. dañ ko yàqamti trop. mbër mi ngi entraîné waaw mi ngi def lu mu war yëpp. Mhm. mais la mooy suñu problème amuñu combat. Mhm. dañu war a jox combat barke alxuraanu karim. billaay walaay kii mbër la kii champion la. ay la daan yàgg wala ah, ñu ñu jox combat barki alxuraanu karim barki Seydina Mohamed. non combat bi day taxaw incha allah. loolu lañ bëgg da nga koo yàqamti am xel ñaar quoi. da nga koo yàqamti barki alxuraanu karim. dëgg la non day taxaw. kii mbër la champion la. non ndaanaan la dëgg la ñoom bu ma yow. ñoom la naa wala bu ma yow dañu raw. ñu ko waay yow. jël laj dem la barki alxuraanu karim dëgg la mais xam nga lépp am nañ ko billaay xam nga gars yi itam dañuy ragal xele boo xam te ne nii dafa nekk ci yoon mën a bére te booy loo dafa nekk ci yoon te dafa mën a bére dafa mën a bëre barki alxuraanu karim parce que du loolu la gars yi di daw nañu jox nañu jox ah. combat barki alxuraanu karim gars yi jël leen ñu komba barki alxuraanu karim amuñu bi waay yow doo leen ñu jël komba du fa demee noonu waaw gis nga ah. barki yàlla a mu ngi sant yàlla bu wér jërëjëf ati Touba rek ah na yàgg waay ñaanal suñu mbër bi yàlla defal ko tawfeex amiin waay ñaanal mbëru Medina yëpp yàlla defal leen ndam di wax ne nag Boylo suñu mbër la champion la dañu xaar ba yàgg mhm. affaire bi dafa war a gaaw mhm. bu yéexee rek baaxul dëgg mbër la dafa nekk mbër boo xam ne mhm. dafa war dem ci kaw dëgg la comprendre di wax ne di bëggee ñëpp di bi di bëggee Mbacke Dia gis nañ waxam waxam rafet na lépp naaj na xam nga di ko ñaanal jàmm moom borom baax la fu mu génn day bëggee ñëpp kon donc xam nga di ñaanal di ñaanal Diène Kaïré suñu borom defal ko ndam di ñaanal Ibou Afia ñëpp ñu leen di ñaanal mafia bi di ñaanal suñu mbër bu bees bi nga xam dafa war a bëre 31 décembre yàlla defal ko jàmm muy Cheikh Bouya te gëm naa ne day daan ñun ragal ñu fu ñu jëm de mbër rek la ñuy topp mbër rek la am keneen keneen koo xam ne da génn dem peneen yaa xam xoolil foo jëm comprendre mbër bi def lu mu def na xam ne rek Medina la la ko sekkal Diène Kaïré tey day daan xolam di gën a bon Ada Fass na xooli fi mu jëm mbër rek la ñuy topp. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi soxla ñëpp. waaw mbër bi bëre la paay leen soxle te kooku xam ne nga bu baax. bandi bu saful day la Ronald Ndiago la. waaw day xaar fële. kii mooy ñëw day toog su ma ko ñëwee foofu da koy bële jàll. ah bon bilaay wallaay taalaay day xaar fële. du bandi xottu bandi la. billaay suñu mbër mooy nii combat leen soxla na yàlla. toog neen ba moom kese leen soxla nii Roland Ndiago moom la ñuy xaar. du bandi day xaar fële. salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp. booy bul dugg. man la laa si combat bi. Ah, ah. Roland Ndiago day ñu daan ko. mu xeex ñu duma ko. ñoo ko mun ñoo ko doole. ñun boyloo rek la ñuy moom la ñu wóor moom moo borom Medina barke alxuraan su xeexee ñu nokk ko. su bëree ñu daan ko ñun kii la ñu wóolu ay ñoom Laurent Ndiago yëpp ñuy xaar kii woy Messi woy la nga Messi. Ah? kii woy Messi. ok yuuxu leen Messi ñu dégg. Ah. kenn yuuxu Messi. ata <laughs> ça daam. naaj yaay dox bagage yi. niroo nga gaa de ah. <laughs> ah bi naka la. waaw sant yàlla wér. Ah? bi tur bi. Cheikh Cheikh. Cheikh. waaw ata tey ñu seet si sa lan nga koy wax. ginnaaw ma sant yàlla si yonent bi sigil tuuti sigil sama waajur waaw maa ngi ziar gaa yëpp mhm. dina ñaanal jàmm di ko soog si ñoom mhm. man si gars yi laay njëkkee man dama kontaan si ñoom barki suñ Bamba parce que dañuy taxawee sa waay quoi waay koy taxaw bu baax a baax billaahi dafa ñëw rek gaan gaay booy jël ko gaan mel ni muy loolu noonu quoi mhm. billaahi ñoom laay gën a gërëm gaan di lay sant mbër moom li ma koy wax xam nga muy loolu moom na yokk entraînement yi concentré si lu mu war a def quoi xam nga combat bu amee ñu waaj comme ñun doon waajee mais jot na gaan pour mu am combat parce que toog bi yàgg na te xam nga muy loolu mbër la mooy def preuve yi nga xamante ne kii nii yoon la tamit mu am combat comme gars yi li ñuy wax rek ay liis njaagoog lora ay yeneen ak yeneen mhm. comme si bëre rek baax na ñun daal lamb rek lañ bëgg te moom la ñuy topp ñun dañuy lamb foowuñu barki Sëriñ Bamba combat bu ñu am rek baax na barki Alxuraanu Karim jot na tamit mu am combat parce que xam ku bëre arène tamit ay 4 combat 4 victoire tamit nga toog am na gars yi nga xam ne amuñu loolu yaa ngi leen dégg xam nga muy loolu man maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal waa koñ bi jàmm ak salaam di ko muy loolu quoi ata bi naa ñu sant yàlla julli suñu sant suñu yaay waajo mhm. waaw kii nii moo ñu fi teewal quoi booyloo kii mooy booyloo mais kii dafa sonn si ñun billaahi dafa jàppale booyu ndaw yi dañuy gis ndax moom billaahi mais kii dafay woote ñëpp yuusi ko mhm. borom baax la moo tax billaahi booy wax da xam li ngay wax mhm. mais kii billahi amna no xamne bu nga melone di nga fi téewal mm. mais ki dafa wacce bopam mm. tol ni nit ñi mm. di waxa ñepp du ba du fi baye kenn du la njaaw nak na jël avance bu ko jëlé na xamné luko bénké ñenké yow té yow do bandi sax eh, mbolo bi ñu waaw acha ñun la moñu metti quoi ah la moñu metti ñun waaw muy la ñu romu bi chaque jour di entraîner uh-huh. te gaay nangu ñu ko jël waaw lool du yoon du yoon de ay ah. moro ñoy ci lamb ji waaw sérieusement wala gaay ni ko ragal bok est ce que du lolu mais ki dama nek ci man dafa garaaw de ah bëre rek lay def. ah waaw day bëre de. ñun loolu dañuy métti ñu ñu toog mbër day entraîné kenn dangu ko jël. yoon na mu mbër bëggeel ñu fii quoi. billaay gën mbër rek est que est-ce que saay-saay bi ci biir itam lu moom la gars yi di daw waaye. mais gars yi dañ ko a jël. quatre combats yi mu bëri yëpp seetaan nga ko. waaw seetaan nga quatre combats yi seetaan ko mbër ji nga lu muy bëre. non la lay laaj seetaan nga. quatre combats seetaan naa wan na ma ko. est-ce que quatre com non nga stade laa ko. seetaan nga li waaw léegi est Euh, ni mu daanee kenn ki noonu la daanee trois personnes yi. déedéet. bokkul est-ce que du loolu la gars yi di daw. mais gars a ñu ko daw. ah mais boo yaa ngi fii di am combat mais mbër dafa war am combat. waaw mooy yoon loolu du yoon quoi. promoteur dañ ko war a cesser. Mm-hmm. tëgal ko combat. Mm-hmm. mbër day toog ni di entraîner chaque jour nii dafa métti entraîner chaque jour nii dem di ñëw dem di ñëw te du am combat. dafa métti loolu du yoon gaan. billaay su yàggee mbër bi xam nga si yàggee mën na dugg sax si yoonu si gaal bi. gën a dem du dem du dem <laughs> waaw loolu am na. di wax tamit promoteurs yi. waaw segal nañ promoteurs yi nañ contrôler billets yi. billets yi waaw billets yi bii passé dem nañ stade xaaj bi dugg Uh-huh. ay billets yu baaxul leen ñu jox bii passé ok billets yi dara baaxu si booy bëri dañoo dañ leen génnewaat estade bi ñii ñu leen di jàpp hmm. barki alxuraan ñun man maa yoroon bloku billets yi waaw billets yi dañu ko joxee estade promoteur hmm. bee ñu ko jox ñu ñëw fii di ko jaay booy 2000 2000 mais bu ñu demee ba estade dañoo am problème dugg ndax gars yi nee nañu billets yi baaxul te promoteur bi moo leen jox ñu jox bloku billet ñun ñoo dem fii di ko jaay gars yi 2000 2000 ñu dem ba buntu estade am na ñu bëri dañ leen nee billets yi baaxul ok dañ contrôlé loolu tamit waaw loolu nañ ci Ah. tàgg mën nga tàggatoo. waaw comme li mu wax rek lu am solo la ñu gën a saytu loolu bu baax a baax. ndax yi xam nga topp la ba buntu stade nga jox leen billet yu baaxul loolu day xaw indi loo xam ne kenn du comprendre quoi. mais ak lu mën a xew di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Medina bu baax a baax di sant waa Ngunjaan di sant sama booy yëpp ñoom Sita bu booy loo xam nga ñoom Moussa xam nga Amet Mbay Jaar ñëpp bàyyiwuma leen. xam nga di bëgg ñoom booy yëpp El Hadj booy Zotem xam nga ñoom Abdourahmane gars barki alxu ah, gaa instant nii yow gis nga leen sa boo leen gisee da nga xam ne combat rek lañ bëgg billaay wallaay man moom lool rek moo ma traité nelaw quoi xam nga kon jàpp leen si yéen ñëpp waaw ñun moom ñu ngi fi di entraîner chaque jour di xaar quoi mais yàlla baax na di sant sama yaay bu baax nag di ko santaa di ko santaa di sant sama papa bu baax a baax yow tamit ñu ngi lay gërëm di la sant noonu la demee waaw aca yow it ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yàkkamti nag nga am combat ba ñu ñëw yëndu fi ak gaaya ah. xool mafia bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est Ngoy TV c'est meilleur leen di ziar di la ñaanal jàmm te ko sàkku si yéen.